lan la mun ne moom affaire bi dafa mel ni fii la xewee ñu ne fii yëpp muudu muudu yëpp dañ may yërëm dañ may yërëm te loolu muy xewee fii dakaar mais dafa mel ni États-Unis New York foofu la xewe woon instant boobu moom New York la nekkoon mais dafa mel ni New York affaire bi foofu la xewe woon tu vois di ko wax di ko wax di ko wax mu ne nag mais yow li ngay def nii baa xool nga ko mu ne ko waa xool naa ko wax mu ne ma xool nga ko bu baax rek yow daal comme liggéey daal tàggoo demal nga liggéey du ma la tere mukk liggéey. bi ñu ko tàmbalee nag nag muy affaire bu jafee def parce que dafa laaj koppar yu baree baree baree bare parce que un café avec dafay émission bu diis parce que ñu bari bu ñu gisee un café avec nii dañu yaakaar ni rek film bi rek la ñu gis mais liggéey bi ci ginnaaw ak alal bi ci ginnaaw moo moo bari loolu moo tax d'ailleurs nit ñi film bi mën leen a neex. ndax génn beeg dox beeg yooyu ak te yooyu yëpp dafay laaj alal donc il fallait ñu trouver ay sponsor buru woon ñoom c'était pas possible parce que mënuñoo def émission te fayuñu euh, ñii def émission bi ki koy réaliser ki koy bind ki koy bind da koy fay ki koy da nga koy fay ki yanu kii dawal oto bi da koy fay ki yanu bagage yi danga koy fay kii taal yi danga koy fay ki kii kii kii kii kii kii chargé de production bi danga koy fay kii maquillé da nga koy fay ñépp dañuy fayeku mu nekk ay salaire yoo xam ne kenn xamul nu mu toll bu dul woon ñi jàpp ci émission bi loolu du mun a nekk mais il fallait que vraiment ñu yaatal ñu bañ a am concurrent ci biir émission bi ñu def une publicité intuitive ci biir daal di koy yaatal. forme publicité bi ñu def café avec je pense que musul am déjà c'est déjà contesté les professionnels ñi ngi koy contesté. Boubacar ni ma nañu dem Orange parce que comme ñooy sponsor bi fi ëpp doole nañu dem waxtaan ak ñoom déjà ci concept bi ñu ñëwee Orange. waxtaan ak ñoom bi ñu njëkkee gis madame Sidibé temps yooyu moo nekkoon orange ñu waxtaan ak moom mu ni moom il faut ñu bindal ko affaire bi mu xool ko parce au début daal affaire yi kii ko woon waaw waaw mi ngi doon am xel ñaar daal waaw parce que daf ni moom émission yi généralement yi def télé Sénégal du am suivi série yu bari nit ñi dañ koy tàmbali ba ci yàgg du ñu am alal pour yeggale ko te moom bëggul engagé orange ci loo xam ne nii daal vraiment da ngay waaru alors bi ñu demee bindal ko ko indiwaatal ko ko ndaw si xool ko ñu dugal ci nag loo xam ne nii moom moo tax yaakaar naa ni mu nangu parce dañ ko indil façon publicité boo xam ne mosul am Sénégal dañoo ñëw ni ko léegi au lieu ngay dugale spot publicité bi day nekk ci biir film bi waaw maanaam bu fekkee ni danga bëgg ñu wane TV d'Orange Boubacar ak jabaram dañuy toog taal télé bi TV d'Orange su fekkee ne da nga bëgg benn produit nga bëgg ko jaay Boubacar ak jabaram dañuy dem jëndi ko ci biir film bi. la collaboration aussi am na benn ouverture d'esprit parce que boo gisee publicité bi euh, nu ñu koy intégrer ci biir parfois ça prend peut-être même des proportions yoo xamante ni sometimes dina gêner un nit ñi mais euh, un pro un produit comme ça a besoin d'être financé et pour que ça soit financé il faut que nga jox quand même quelques largesses aux nga xamante ni accepté nañ accompagner la mettre de l'argent Euh, donc euh, ces partenaires là aussi on les remercie au passage parce que c'est une production boo xamante ni ñun ak euh, Cheikh Yérim Seck Boubacar ñoo ko bokk en fait. patron il dit ça ça mouton d'Arabie Saoudite tu as payé là c'est pas. doucement doucement oui patron. non il faut aller chercher des gars Ah, patron, il était bien. Action. Kati yaa ngi toog. Ndeye maa ngi toog ça va. ça va alhamdulilah. nga jaar ji ba jaale. kii xam nga moom. Ndeye. Ndeye. Ouais, vous na a... euh, je, je, je veux voir si je peux amener ça à ma soeur, quoi, à